booy yu jóge ni brise de mer léegi yaay te defee lu écurie Ndakaaru ana waa écurie Ndakaaru. waa écurie Ndakaaru bi mu ngi fii écurie Ndakaaru dafa bari ñu fa nekk. Tonnerre de sax moo ci gën a ndaw du ma d'accord sax ay tête de file parce que man gëmuma yooyu. mais ñi fa nekk ñoo de file non non écurie Ndakaaru ay booya nga fa ñoom ante nga fa ñoom booy jobaas booy yu baree ngi écurie Ndakaaru ay xale nag yu déggoo yu ànd def benn bloc comprendre nga. écurie Ndakaaru nag ak écurie Fass dañuy booloo ak duñu booloo wax moom bu feebaree sax nopp ya koy déglu war a wér comprendre nga mais ñun li ñu décidé xam nañ jóob nag Diop man du ma am loo xam dama koy nebu wala ma koy làqu jóob li ko jëlee woon écurie Ndak écurie Fass. ba mu mooy Diop li ko jëlee woon écurie Ndakaaru écurie Fass ba mu ba ba mu sos écurie Ndakaaru moom xam na ko bu paree pour dellu. man dégg naa benn paa nee na ma mer moo ko fa jëlee woon te bu ko fa yóbbuwaatee est-ce mer du ko fa jëlewaat est-ce que loolu ngay wax. waaw moom xam na ñun xamuñu parce que écurie Ndakaaru bi may ñëw écurie Ndakaaru maa fa gënoon doon tuut tànk ñu yëkkati ma teg ma ci loxo Sewru sama nijaay Dece yëkkati ma teg ma ci loxo Sewru Fall Sewru ma teg ma ci loxo Kati ak Mbaye Cissé ma nekk fa. ndax écurie Ndakaaru jamono bi mu fay dugg dugg fa dafa metti parce que boo nekkut séeréer daawuñu la nangoo jël parce que daawul nangoo jël olof koo xamante ne si waaw. comprendre nga bi yàq ya di nekk nanguwuñu woon jël euh, olof sama dugg écurie Ndakaaru mi te woon mais écurie Ndakaar laa defoon sama choix maa ngi fii Colobane bu doon écurie Fass laa def sama choix kon du ma dem écurie Ndakaaru mën naa ko lijjanti sama bopp am naa pexe yooyu waaw. mën nga ko li jënd sa bopp am nga pexe yooyu mais dama ne fan yi dañ ne dañ leen boole boole bi yéen nu ngeen ko gisee. waa boole bi euh, woote woon nañ ci réunion ñu war cee waxtaan jamono biñ ciy waxtaan boobu dafa fekk ma am grand combat Casamance ci jour bi man maa convoqué woon ñëpp pour ñu def réunion mais ci jour bi dama mujj bàyyi réunion bi ñu ma koy ñu may kii par WhatsApp. comprendre nga mais moom Diop décidé na. réunion lan la woon réunion bi wala. réunion dañ doon réunion pour waxtaan tooga ak waxtaan ci dem Fass wala duñ dem Fass yaa ngi pour ñu xool lan la ñuy. mais loolu yow yaa wa woote wala kat waa woote. man maa woote réunion bi parce que damay dégg ci presse bi chaque jour maa may jot ay information wala bu ma jëndee journal gis ne euh, faas ak Ndakaaru dañu war a booloo. xam nga loolu c'est man te man ma ne lu mën a nekk la yaa dégg dañu am nag benn conférence de presse boo xamante ne sii mbëri ndakaaru yëpp dinañ toog wax ci li nga xamante ne si moo jëm ci wàll woowu parce que lépp lu ëpp nag tuuru te doomu aadama ñun li na ci ñun Jóob moo ko def ci ñun mais yaakaar naa yow duma la may lépp nga bëgg a jël lépp comprendre nga te wat gaal ak yégoo bu ñu demee ba nga xamante ne si dañu war a toog yaa ngi dégg dem écurie Ndakaaru Diop moo waroon woote réunion ñu toog mais du mbër ñoo waroon a woote réunion du mbëri ñoo war a woo seen manager parce que Seydou Fall manager la ci écurie Ndakaaru mais du cëru manager kese lañ ko fa jox. du cëru manager Seydou Fall dañ ko def comme dafa bokk ci dafa bokk ci écurie bi comprendre nga entraînement sax mooy jiitu. comprendre nga moom la ñu woo xamal ko ne dañu bëgg a réunion ak paa bi ñu toog moom mu xamal nañu écrit Ndakaaru day day day day booloog Fass. mais moom bi mu jëlee décision bi est-ce que woo na ci kenn ci yéen waxtaan ak moom ci loolu avant muy dem ci presse bi. ah loolu mën na nekk mën na nekk mu woo kenn mais man Tonnerre personnellement man Diop woowuma ba fii may wax ak yow waxut ma wax ci. ci mbër boo xamante nekk na écurie Ndakaaru waaw ci mbor boo xamante ne si mu ngi en activité ci biir écrit bi comprendre nga ñun nag dañu doon ay xale ñëwoon fekk fi ay mag ñoo xamante ne si dañu fee def loo xamante ne si Sénégal yëpp a ngi ciy bàyyi seen xel teg ci seen bët ñun ci yoon boobu lañ nekk doon ay xale nag gëm suñu bopp di jóg ak daanu li ne ci ñun mu def ko ci ñun kon tey bu xëyee un bon jour ne dafay dem comprendre nga. loolu yaakaar naa ne li liñ ci war a gën a yaatal daal ci sama ci gàttal bu ñu defee suñu conférence de presse. mais mais mais mais avant conférence de presse est nekkul loolu mu leen di defal noonu moo nekk li nga xamante ne day gën ci yéen parce que tamit équipe Fass ku ko xam ku ne xam ne université la bés bu ngeen jógee Ndakaaw yegg foofu est-ce que nekkul day yokk gën a yokk seen xam-xam. non li gën ci ñun yàlla rek moo ko xam li gën ci ñun yàlla rek moo ko xam li xew suba yàlla moo ko xam mais ñun gëm-gëm bi ñu am gëm-gëm bi nga xam ne ñun moom la ñu am. comprendre nga dañu gëm ne li ñu war a am yaa dégg du ay dem écurie moo ñu ko war a mën a may. kon da nga yaakaar ne boog bu ngeen demee écurie Fass euh, écurie bi dafay faf seey ñenn ñi dootuñ fa am benn tur bi ñu bëggoon am parce que dañ fay fekk ñoo xamante ni day nekk ay mbër yu mag ci ñoom est-ce que du loolu moo tax ngeen baña dem. non écurie Ndakaaru bu ñu nee écurie Ndakaaru écurie Ndakaaru du écurie bu ndaw. non mais léegi amoon na ay mbëw VIP mais léegi écurie Dakar amatul mbëw VIP. ñun ay VIP lañ. écurie Fass nekkee VIP bokk nañ ci VIP. barke Serigne Touba ay VIP lañ. comprendre nga ñun ay VIP lañ suñu bopp lañ. fi nañu waxante dëgg fi mu toll nii VIP booy booy lim moom doo génnee ah VIP écurie Dakar kooku moo mënul nekk. waa xam nga tey al al de ñuul xaw ma nañ lañ koy waxee noonu olof yi waaw al la fa di ñuul moo fa di ñàkk xam nga ñun ay gone lañ écurie Dakar lañ nekk dañu gëm ne ñun la fa nekk ñun ñoo ko fa war a def comprendre nga te pare nañ pour pour pour pour nekk ci yoon boobu tamit ñu ci yoon boobu mais du ay cadre dañuy dem faas wala demuñu faas loolu li ma la rek dinañ ci toog. non su ma déggee ni ngeen waxee moom parewu leen pour dem faas moom. dëggoo loolu dama la ne décision bi ñu jël. Mhm. dañuy ànd ak Diop dem Fass wala du ñu ànd ak moom dem Fass loolu bu ñu toogee suñu conférence de presse comprendre nga dinañ ci wax. di ngeen ci wax mais am na wax yoo xamante ni soo ko déggee di nga xam fan la jëm parce que tey Diop bu fekkee jël na décision jël équipe bi yóbbu ko Fass maa ngi dégg ngeen naan da ngeen di laaj ay kayit bu fekkoon nangu ngeen dem nangu ngeen dem coow lu du bàyyi li mu wax ci loolu ngeen ànd dem mais moo ngi wax ngeen génn fii wax ne tàgguwul kenn yéegalul kenn yéen a ngi woote waat te moom moo woon woote wax ji am na ñoo xam te ñi ñuy seetaan sax bu ñu ko déggee dañu xam ne Tonnerre mi euh, li Diop di wax moom àndu ci. kaa ñu dem moom day fekk ki ngay woo mu bëgg a dem comprendre nga. kon wax ji leer na Tonnerre 2 bëggul dem. non du ma ne Tonnerre 2 bëgg te dem mais dama la ne. man li may wax dafay leer parce que man man euh, yàlla dafa dogal ci man li may tiit ci sama kàddu bëriwul comprendre nga li may tiit ci li may wax bariwul bu dee am na dama la ni bu ñu toogee pour def conférence de press bu fekkee dinañ dem mbari ndakaar yu dem damay wax nag ci kàddu mbëru ndakaaru yu yëpp muy anti di booy jobaas di xale yi nga xam ñoo topp ci suñu ginnaaw parce que li topp ci suñu ginnaaw ñoo bëri wala fas da nga jàpp ne mbër yi fa nekk ñoo ëpp mbër yi nekk ndakaaru mais mbër yu mag yi fa nekk ñoo ëpp mbër yu mag yi nekk ndakaaru ñun ñun day wax dëgg si yàlla dañu gëm ne yaa ngi dégg dañu gëm na ñun ci suñu li ñu li nga xamante ni si moom lañ gëm objectif bi nga xam ne moom la ñu am gëmuñu ne yaa ngi dégg benn mbër gën nañoo kawe parce que suñu bopp la ñu gëm. mais man ma yaakaar ne Fass moo woon bañ mais o contraire waa Ndakaaru ñooy bañ. <laughs> Euh, est-ce que est-ce que est-ce que sax loolu waa Fass nangu nañ ci. est-ce que boole jël ndakaaru écrit ndakaaru ak ni mu toll nga jël ne danga leen di boole est-ce que loolu waa Fass am nañ. man doon naa def micro trottoir mais gars yi nee nañ ma bés bu ndakaaru demee ci Fass ndakaaru moo ciy seey. <laughs> yàlla baax na yàlla baax na yàlla na yàlla def sutura li nga xam ne ni moo gën yàlla def ko. léegi yéen ba jour ngeen di woote réunion. waaw loolu nag euh, ñu ngi ciy waxtaan ak Sidi pour ñu toog ñu waxtaan. ku ci mel ni xaadim Anta Seck ñu ngi ci doon waxtaan te waxtaanoon ci waxtaan bu yaatu daal te incha allah yàggul dara loolu dina am yàggatul dara fan yii rek incha allah.